alors euh, sànq am na loo xawoon junju et moi d'après mes recherches euh, dégg naa ni am nga ñaari frère yu nga xamante ni mhm. dañu génn àddina mhm. euh, xam naa ni c'était des moments difficiles ouais. parce que le fait de perdre un être cher dafa daal di metti euh, mais bon naka nga ko dundee ak mhm. s'il reste encore des souvenirs ah ci ñaari frères ah yooyu noonu ah lan la déggul excusez c'est compliqué. <laughs> et moi aussi je suis désolée. c'est compliqué c'est ah. compliqué parce que. bon euh, tu sais euh, kenn ki sama mag la. sa mag la. ñoo bokk ndey ak baay. mooy suñu taawu comme on dit moo moo nàmp jox ma il avait deux de plus que moi. keneen ki sama rakk la ma bu jox ko j'ai deux ans de plus que lui mm-hmm. yàlla moom leen ci bon disons ci biir bu gàtt quoi mm-hmm. parce que bon euh, l'un est ah, l'un décédé euh, pratiquement jeune l'autre également euh, comme on dit ñoom ñaar ñëpp bi ñuy génn àdduna mm-hmm. kenn bàyyi fi jabar ci ñoom kenn bàyyi fi doom oh. boobu man am naa jabar am naa ay doom mais yàllaa ko defee noonu chaque fois quand on parle de de li may wax mooy du seen yaafus moo leen yóbbu te du sama jàmbaar moo ma fi téye yàlla la neex mhm. mu yóbbu leen comme yàlla la neex mu téye ma fi euh, sur une fratrie de de six on est six macha allah. Euh, sama benn rakk bu jigéen maa ngi koy bu baax c'est ma c'est copine sama lépp la. Mhm. Uh, sama yeneen deux frères ñu ngi fi également mais ñoom ñaar dafa dafa dafa yéeme daal mais sant yàlla. Cheikh Abdou mhm. Khadr moom lañ tuddee suñu taawu kër. Uh, kii nga xamee ne moo nàmp jox ma. Mhm. sama petit frère Babacar. Uh, moom maanaam bu jox ko di ñaan suñu borom fa ñu nekk gën a leen fi ñu jógee di leen xalaat chaque jour parce que bon après presque tous les dimanches maa ngi maa ngi à rajo pour ñaanal leen mm-hmm. tout simplement parce que je me dis que ils n'ont même pas laissé d'héritage comme on dit bàyyiwuñu fi sax bant bu ñu leen benn petit moo tuddee doomam euh, Babacar mm-hmm. sam benn cousin Ablaye Gueye maa ngi koy nuyu également tuddee sama mag doomam Euh, donc euh, ci loolu lañ leen di mën a xoolee mais sant yàlla daal. sant yàlla est-ce que am na euh, des ay mbir yu nga xamante ni jot ngeen ko partage lu mel ni souvenir et que souvent day day day ci yow nga di ko di ko souvenir ñaari souvenir ñett ñeent énormément de souvenirs par exemple. Hmm. sama petit frère on avait une manière de se saluer. par exemple comment bu bu bu bu muy feebar. Hmm. damay jox loxo jox ma sa loxo. ma joxee loxo xam nga ma def ko nii alors qu'il était malade il okay. pouvait même pas parler xam nga def nii et on avait ce salut qu'on avait entre nous okay. Euh, mu feebar feebar feebar mhm. respecté woon na ma respecté boo xam ne su ma gisee su ma ñëwee sax day bëgg jóg alors que boobu mënu sax jóg oh. euh, sama grand frère également mhm. bon il aimait les montres ok euh, ñëw ne ma mais wutal benn montre ma ne ko naa la jëndal montre benn montre ñëw takkal ko ko. Mhm. loolu wut benn montre takkal ko ko mais bon euh, y pas mal de souvenirs mais entre frère xam nga dafa dafa yéeme. parce que on a ñun am ñoon xarit ni ñu yaree on était d'abord ñu ñoo nekkoon xarit. suñu biir ba mhm. avant ngay dem ci biti. on avait des amis bien sûr mais. Mhm. maanaam c'est d'abord la famille. et ensuite euh, ni ci biti donc. Euh, macha allah léegi maa ngi fàttali xale sax xeex. amoon na sama petit frère bi ñu xam nga rek ay yool daaj xaw ma yooyu <laughs> ñoo takk la ci poto. mais après ñun xeex lañ koy def pour euh, yu mel noonu bon entre autres mais sant yàlla. alors foofu dama la koy baal bi raay mhm. parce que je sais que suñu continuer après suñu mhm. émission dafa yàqu et on a encore d'autres choses à découvrir